mbokk yi bàyyi xel seen chaîne préférée seen njëriñ TV ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal tay nak ñu ñëw ci vidéo bu yes bi nga xamantene dañ leen di diktal jëm ji nga xamantene moy adjudant sar moy gendarme bi nga xamantene dafa exilé wu dem ba Amérique ngir lan am jote bo xamné amna ci digënté mak wala rero wala lu mëna doon ci digënté mak général Moussa Fall ana lan mo wara lu ni mel waye bu topé vidéo ba déglu ko di nga dégg tour Ousmane Sonko lan mo tax Ousmane Sonko nek ci digënté adjudant Sar ak général Moussa Fall lan mo tax mom adjudant Sar ñu tejjon ko ba noppi affecté ko Kédougou xañ ko lu bari ci jamono ji am na journaliste yu bari yoo xamante ne ñu ngi bind lu ñaaw ci moom te xamuñu ko. moom nag ma ngay alerté ne moom nëbbatuwul def na vidéo ba ñëpp xam ko gis ko li mu wax tamit assumé na ko ci dëgg rek ci la mës a nekk tuuma yu rëy yu teg ci ndottam ngir jàpp ne moom mooy fournir ay information Ousmane Sonko ak waa Pastef te loolu dara du ci dëgg ginnaaw bu ñu saytu ay téléphone am saytu lu bari ci moom gisuñu lenn loo xamante ne taqee na ko wala laale na ko ak Ousmane Sonko lu dul am na doomu bàyyi Ousmane Sonko boo xam ne diw Sonko rek la wax ci vidéo bi moom xamante na ak moom waaye amul benn relation ak Ousmane Sonko waaye nag li ci gën a doy mooy laaj bi ko laaj ci réewum Sénégal mu wax ci aviam waaye wax ci jafe yi nga xamante ne Sénégal ñu ngi koy dund Ousmane Sonko ak ñi nga xamante ne waa Pastef loolu tax na tëj nañ ko ci waaye nag yamuñu ci tëj ko waaye affecté nañ ko ci ca Kédougou comme ni ñu koy defee xamante ne ay bañkat lañu bëgg seen réew waaye bëgg dox ci dëgg waaye bëgg jaamu yàlla ci liggéey bi leen suñu borom baaxe wala jagleel ñooñu daal saa su nekk dañ leen di indil ay problème mbokk yi bàyyi xel seen chaîne préférée seen njëriñ TV ñu dégtal leen kàddu yi ak Djinon Sarr Moussa xëy na ne dafa jot ay information yu ko wax ni man Omar Sarr damay sàcc ay renseignement au di ko jébbal Ousmane Sonko ak waa moom yónni na waa section de recherche ci man ngir ñu enquête ba xam ndax loolu lu am la ñooñu it bi ñu ma dégloo laaj na ñu samay téléphone ma jébbal leen ko ñoom ñu continuer seen enquête ba lu tollook fukki fan wala li ko li ko ëpp ñu jébbal ko. këyit gi ñuy wax procès verbal d'enquête maanaam enquête bi ñu dëxëñ ko ci këyit yónnee ko ko ne ko Amar Sarr mii nga ñu yónni ci moom déglu nañ ko saytu nañu ay téléphone am waaye nangu na ni xam na kii di diw Sonko te muy doom baay ci Ousmane Sonko waaye xamul benn yoon Ousmane Sonko ci enquête bi it feeñul benn yoon fu mu xamee Ousmane Sonko wala fu mu seqeeg moom daray politique Ama Sarr mi gisuñu ci moom dara loo xamante ne ndiroo na ak yëngu-yëngu politique wala bokk lu jëm ci jël ay renseignements wu gendarmerie di ko jébbal Ousmane Sonko wala beneen nit waaye Ama Sarr nee na donte xamul Ousmane Sonko biñ ko laajee lan mooy. sa gis-gis ci lii di xaw ci réew mi tontu nañu ne moom àndul benn yoon ci lii ñuy doxale jëmale ko ci Ousmane Sonko ak ki ñooñam Amar Sarr nee mi ngi ñaawlu yooyu xew-xew ndaxte moom génn na fi réew mi lu dul benn yoon te la mu gis bitim réew ci ay crise nee na yéenewu ko senegaal Amar Sarr àndul ci nit ñi doxale ci Ousmane Sonko ak ki ñooñam loolu moo nekk ci procès verbal bi ñu jébbal ko Moussa Fall kon booy topp nit ba nga am lu toll ni procès verbal boo xamante ne section de recherche bu gendarmerie Colobane moom moo ko enquête ndax doo bàyyi nit ki bu fekkee yoon moo la tax a jóg waaye li ngeen xamul te muy lu xew te mooy li tax man ma gedd gendarmerie moy Moussa Fall ci bopom tëj na ma jour bi ñu ma enquête bi sax tamagul fenn manam enquête bi pare ay dix jours après Moussa Fall tëj na ma le premier jour bi ñu ma muy le 7 juin 2023 di mercredi bët set ni jeudi Moussa Fall tek na ci affecté na ma mom ci bopom signé mit sama mutation yobuma ma ci ko xamante ne nga ko lu non nga xam ne bu doon man maa ko def dan ma waroon a summi la ma ci conseil d'enquête dàq ma ba pare jébbal ma prison suivi normalement parce que nag faute bu luur a luur la lool. waaye li tax ma ne Moussa Fall si ay tappaleem la nekk mooy amul benn yoon waloor man gëwma benn yoon fu ko nit joxe ay information moo ma bëggoon jëlee fu ma nekkoon ci loo xamante nag la fa xew mi ngi fa te maa ngi ñaan yàlla ñu yegg ci wax ko ndax nag li mu def nii yëpp loolu moo ko tax a jóg li ma merloo nag ba man ma gedd gendarmerie mooy dafa laal sama dignité Moussa Fall dafa laal sama honneur teg ko ci jaay doole ak maatay falu buur rekk foog ne yaa moom nit ñi di def lu la neex di tëlli tëlli Moussa Fall tëj na ma ci kaso sama waajur génn àdduna ñoom ñaar ñëpp ci loo xamante ne taqewuma ci laalewuma ci delluwu ci benn yoon li ma warloo woon ak sama waajur Moussa Fall na ma ko lii gendarmerie warloo woon ak sama waajur Moussa teg na ci tànkam ma leen laaj ndax mën nañoo def nit lu toll noonu mu continuer di sol tenue di xaari grade walla di xaar salaire walla di xaar ay privilège déedéet man bokkuma ci xeetu nit ñooñu yéen ñi Moussa Fall di yónni nag. ngeen di ay taskatu xibaar ngeen di bind lu leen neex ci man te xamu leen ma man maa ngi nii di wax ak yéen jotewuma ak yéen jotewuma ak gendarmerie jotewuma ak état Sénégal Moussa Fall laa joteel te maa ngi dox ay tànk yu ma ko jëflante ak moom ndax nag chaque jour saa yu ma xëyee maa ngi koy yónnee ay message mu ne pat mu ne pat tegu ci baat yooyu ci yàbbu yu lii yëpp man ak moom la général Moussa Fall ba post bi ma def sama page facebook mo waral mu jaare fofu di yone ay journalist ñu yàq sama dar mom mo leen ko njëkk a kon nak na ci ñëpp genn yoonu kenn ci man ak Moussa Fall def na si réew mi jaar na ci réew mi fo xamantani buma neexon wala buma topon sama xol wala ma def ko Moussa Fall jubati dinaa fi def musiba wala ma wax fi musiba waye Moussa Fall la jotel jotewuma ku ci bëgg a dugg nag defal comme man à visage découvert nga wane sa bopp. ñu dem mbokk yi kàddu yi nga xamante ne moom adjudant Sarr yëkkati na ko jëmale ko ci général Moussa Fall kenn du ne guleet ndax Ousmane Sonko defoon na lu ni mel yëkkati rapport boo xam ne rapport gendarmerie nationale la teg ko ci table bi ay tuuma yu rëy mu teg ko ci ndoddal général Moussa Fall diggante mag Adji Sarr jaxase yi ci am lépp ak procureur Bassirou Guèye loolu lépp mujjul fenn procureur bi nga xamante ne da daan jóg di auto-saisir ci lu ne. manam dossier bobu da ci mandu ana lan motax mo mu maandu ci moy general Moussa Fall ci bopam ginnawum dafa yaat mo wara tax ñun askanu Sénégal na ndawi Sénégal mo xam ñu ne ci biir rew ak bitim rew ñu laxasaayu takk ba dëgër xam ne élection yile mooy élection yi libéré ci nga xam te système bi la fexé rek ba libéré. toutes les détenues politiques en commençant par leadership bi nga xam espoir de la jeunesse di ñëpp nga xamante ne dañuy def politique waaye bëgg seen réew yokkute ba ñëpp gis seen bopp toog seen réew bañ dem feneen muy président Ousmane Sonko. kenn ci ñun bañ a xeeb sa carte kenn ci ñun bañ a jàppe mbir yi ay foo xam ni maanaam dañu nekk ci virage boo xam ne bu ko ratee rek nga sax nañu dañu nekk ci étape boo xam ne ñoom seen bakkan lañ ci teg ngir toogaat fi ñu ñu war cee teg suñu bakkan ngir jële leen fi ndax war naa mën a nekk doole askan bi leen faloon ñu fàtte ko te olof Njaay day léebu saa su nekk ku fàtte la la fal sag folle du wees nguurug yàlla kese moo dul jeex kàttan gi nga xam ne askan bi faloon nañ leen ko ci doole maanaam génn ñoom ñëpp ginnaaw bi nga xam ne Macky Sall Abdoulaye Wade ak ña mu àndal xeex nañ ko ginnaawal ko ba bëgg ko sax tëj kaso mu dem làqatu fële ca Touba ci Alaaji Baara Mbàkke Fallu yal na yàlla yokk leeram loolu mi ngi mel ne démb tey loolu nag dañ ko war a dàbbaliwaat fexewaat ba Macky Sall ak ña mu àndal ñëpp buñ leen mën a dugal ci saako rek sànni leen géej day baax loolu ci réew mu Sénégal ndax li ñu yàq ci réew mu Sénégal kenn mënu ko xiyaas waaye nag ñu tamit ñu taxaw rek ngir defaraat sunu réew ndax sunu gaal la kenn du ko yàq.